surprise mun naa am te baaxul si ñun. Paasan mm. bul tarxiis merci yamal foofu ñaari point yéen ñaar pour ñu dem feneen bu ma sax nga tontu <laughs> Thierno. président Macky Sall. ak Mohamed Ciss. dañoo waxtaan dañoo daje lan moo ci génn. Pape Moussa yow ñu ñëw nag ci Abdou Karim Fofana. ah Pape président Mohamed Sall Macky Sall non c'est pas trop dafa am loolu Basi. médiation. non dañu ne. dañu ne le roi. le roi euh. moo tax ma posé ko question. ma ne ko dafa am wala. c'est-à-dire que le roi moo. c'est vrai ah, il a été <laughs> dit. il a été dit. Thierno gëj na am ba Bachir baa li nga def. Thierno gën a dégg li ñu lay wax. dégg na moo dégg <laughs> maa bëgg a. Thierno ñëwul. dañ ne Ousmane Sonko. waay mbiram. Mm. Mohamed Ciss mi ngi ciy dox ay jéego pour jàmm am. Mm-hmm. journal bu tudd laas def naa moo ko bind de bon journal bu ñu xam la bu baax bu crédible ci dëkk bi waa xam nga ma nag moom Paa Ousmane mi yàlla def na keroog am nañ sax benn jotaay. ku ci nekk 3 minutes. waaw kay yow soo bëgg rek laay def yow yow xool jàpp leen si ndax ñeneen ñi mën a réagir yow saw xool sa boo ne xonk na rek ñu ne ñu ne cuur barke Cheikh loolu bëgg la ñuy def <laughs> gis nga arab mu ngi lay baab de maa Paa Paa Ousmane bi quoi keroog ah. xam nga Sonko pendant tout ce temps mooy comme débat bi rek mi ngi jalo moom bañul jalo mais ay nitam dañ ko tegoon foo xam ne quoi xam nga dafa ànd xar kanamu dammitu malaaka moom dafa àndi xar kanamu xar kanamu dammitu malaaka koo xam ne dafa transparent bokkut ak gars yi xam nga suivre nga est-ce moo tax daf leen di choqué léegi bu njëkk bi ci affaire mbaalo la président mbaalo mais nee ah. takkandeer day tëgg yi nu mu tuddati seede la takkandeer seede la xam nga ah. mais keroog photo Macky Sall moo fa nekk yaa ngi dégg sa dëgg day tingoom seede ma lay wan ne fii peut-être que mag Sall moo teew ci waxtaan bi donc Macky Sall et Sonko parle à travers Mballo. ah et que bi muy def boobu noonu tàggu na waaye Yewwi Askan Wi xam nga tàggu leen mais léegi bu weesoo léegi nag man bu ma duggee gisee ci ñu pour résumer quoi comme trois minutes la ñu am euh, loolu mooy sol si quoi bu ma ci déggee Mohamed Ciss hmm. ba aw ma niveau d' information wu journal L'As parce que comme ni ma ko waxee journal bu mag la bu ne ci dëkk bi <coughs> mais lenn moom mën na nekk Maroc dafa mës a am nekk médiateur ci affaire Sénégal Maroc waa Mohamed VI parce que ci affaire Karim Wade déjà déjà ñoom médiateur lañ ci woon et que sax pour l'histoire maa ngi ko liiree ci journal bu ñu naan Mediapart tey réseauté. Hmm. Maroc moo tax Karim Wade xam Qatar de toute façon ci géopolitique moom Maroc moo doon brèche su Qatar ci Afrique avant bu njëkk. bi fi Qatar yaatoo gudd muy benn aspect li tax ma mun ko gëm. parce que donc ci affaire Karim Wade il était au centre de la médiation mais xam nga temps yi passé doon nañu wax waa day ñëw Sénégal. Ah. gars yi bëri fàtte nañ wax nañ ko à deux reprises waaw à deux ba ñu ba si yàgg ñëwee dafa grippe ah. bon comme kilifa la du weddi ay waxam mais jamono bu ñaan dafa grippe mi ngi Gabon di dox ay courses ah. te loolu même la presse marocaine kii une certaine presse l'avait relevé bi ñuy wax dafa grippe mi ngi Gabon di dox ay courses est-ce que du boobu looloo ko fi andi woon affaire médiation moo ko fi andi woon déjà je me rappelle am na benn doyen de la presse jamono yi moom daf ko mettre en lien ak affaire Karim Wade il croyait que pour parler moom loolu la yaakaaroon mais man je crois fort bien que yaa ngi comme Ousmane kii Karim Wade ni ko sawaay xaw a junjee léegi hmm. xalu ndeef la fi mu nekk nii quoi même bu gëmul tam boobu même bu fayul tam gëmmu na tuuti quoi. loolu mooy lan il faut admettre ça xalu ndeef donc xalu xalu ndeef mooy xal ak yooyu ñuy def ci suufu kii bi day lu gëmm fekk boo dugalee sa loxo cay waaw très bien léegi léegi donc man li ma jàpp mooy loolu moo xool ndeke peut-être que mu fi doon au mu fiy ñool Karim mun naa am affaire Sonko moo taxoon muy ñëw xam nga tax Maroc. dafa bëri intérêt Sénégal loolu la pourquoi le roi Mohamed VI. non d' abord ci histoire Sénégal dafa yàgg defal Maroc conflit frontalier bu am diggante Mauritanie ak Maroc Senghor moo tax mu réglé en 1970 je crois euh, roi Hassan II dafa doon wax naan si il n' avait que deux seules munitions il va donner l'une au Sénégal l' au Maroc dégg nga donc de de de toute façon Sénégal heure bu jaaxlee Maroc dafa mos a jóg mais ci ati mujj nag. xam nga Maroc dafa am benn stratégie léegi pour pénétrer Afrique parce que dañ ko génne woon ci Union africaine à cause du problème Sahara bi. moo génne boppam ah, moo génne moo génne moo génne ah. autant par en 1984. moo moo génne boppam. Ah. léegi en 2016 bi muy dellu si le discours du trône bi nga xam ne mooy comme ni ñaan ñun suñu fête indépendance bi ñu koy def fii lañ ko defee presque Sénégal parce que Maroc dañoo am ñuy théoriser ne Maroc frontière am mi ngi yem Mauritanie ci berge fleuve Sénégal la yem ay frontière am. donc ñoom Sénégal dafa mos a nekk seen symbole moo tax bi ñuy retourné nag pour investir ci Afrique Sénégal lañ jaar en 2017 déjà jàpp nañ ne dëkk Afrique subsaharienne bi Maroc ëpp investissement mooy Sénégal kon tey xeexoo bi diggante waa Pastef ak waa Benno Bokk Yaakaar ak yooyu bu dëkk bi taxoon ñoom dañuy perte parce que tey boo jëlee le secteur bancaire presque à 70 pour cent hmm. en terme de pas portefeuille quoi mais mooy réseau bi gën a implanté wu c' est des marocains le domaine des assurances le PTP ay adowa yëpp nga ko fiy dégg nii dégg dégg même Patisen merci beaucoup Patisen temps yi passé gis nga sax ci agroalimentaire ah ñu ko bëgg a jël yaa may dégg comme ni olof Ndiaye naan dara ne saa yu lakkee borom yëg ñoom réew mi bu lakkee marocain itam dinañ ko yëg moo tax xëy na lu ñaan euh, xol dee ko bala ngaa lakkale Mohamed Ciss wala ñoo fii pour dox euh, jàmm hmm. et que ñaan yàlla même bu doon bon li nit ñi di weddeek yëpp noonu hmm. ñu dañuy ñaan yàlla lépp lu nit def pour jàmm am Sénégal diggante Ousmane Sonko ak Macky Sall ak ñeneen hmm. vraiment nga dox ko ni ñuy juboo parce que jàmm ci la lépp xaj en résumé Pa Ousmane bàyyi la Pa Moussa waaw Pa Moussa ci pàcc boobu boole ko tamit Abdou Karim Fofana dégg nañ ko barki Dembo Ndiaye ci bi muy lay xaw ma démb ci waaw waaw lay lay noonu lañ ko ah, Cheikh Bara Ndiaye moo tax ma ragal ma ragal ko <laughs> loolu rek nga man du ci du ci du ci sens loolu loolu rek nga ko mën a tuddee argument yi ñu joxe ay kese waaw waxatul lay kiiwee loolu lan lan la la barrière ya lan la woon dara lu dul ay lay rek nga fi mën a génne parce que amul fenn fenn foo mën a sukkandiku ne lii moo loon barrière amul amul. état mesure de sécurité la woon par. ban ban sécurité mooy compromettre. parce que ci ay waxam dafa woote woon. fitna ma ne ma ne ban sécurité mooy compromettre bu maître Ciré Clédor li dem di gis Ousmane Sonko loolu ban sécurité lay compromettre nañ bàyyi font bi waaye ban ordre public mooy heurté wu bu dee avocat Ousmane Sonko dem gisi Ousmane Sonko xanaa ku ñu condamné perpétuité sax sa avocat war nañ laa gis. am de hmm. mais moom dañ koo tere ay avocat bu gis ko. léegi lu xew kon bañ jékki-jékki rek dénk ko. mais li xewoon ba jékki-jékki def ko dara. waaw loolu ay humeur mais mais mais mais saa yu loo xamante ne ministre de la justice moo taxaw ñu koy laaj mu ne la moom amu ci tontu parce que du décision judiciaire amul base légale na ma ko di ñu génneel kon na ma wax lan la saa yu maître Ciré Clédor Ly dañ koo tere mu gis avocat euh, client Ousmane Sonko loolu fan la tegu. ak ban sécurité moom moo ci nekk bu ñuy compromettre ci loolu ban ordre public lay troubler loolu faal nañ waxante dëgg quoi waa waaj dafay def caravane de la paix jugee Ziguinchor ñëw bay waaj a jéggi Casamance gulum mu gars yi ne ko ti jàpp ñoom ñoo ko jàpp ñëw waa ma ne waxuma guma li mu wax dama ne ñoom ñoo ko jàpp wax li mu wax loolu nga may dégg li ma li ma li ma bëgg a wax laay wax yéen li ngeen bëgg a wax wax leen ko déet waxuñu dañuy laaj waaw li li ngeen di ngeen di bàyyi man ma tontu li ma bëggee tontu dama ne jëla sa wàll ko affaire matière fa la woon léegi yaa yaa Paa nag sama waay la. pare rek. ministre de l' intérieur ministère de l' intérieur def communiqué ne waa ji lii mu jógee Ziguinchor di ñëw Dakar dafa violé article quarante six code penal moom moo ko wax. communiqué ministère de l' intérieur. ñëpp di ko gis. waa ku violé code pénal nga jàpp ko loo koy def da nga koy tëj këram. Thierno na ko def na violé code pénal ndax dañ ko yóbbu këram ku violé code pénal dañ lay yóbbu justice atte la daan la yóbbu la prison loolay dëgg bi. li mu wax tam dëgg la nag de. nga kii dafa violé code pénal nga ne ko nit. dem ko Thierno ànd ak Pam mais sanction pénale ci tëj bu ci tëj kër jàmbur amu ci. sanction pénale lii la peine d'emprisonnement amende mais tëj nañ la buntu kër amu ci. Mm-hmm. non sur sur le cas chez lui abus la état voilà léegi nag boo defee boo defee abus bi ba pare. Hmm. après nga dindi ko loolu lay bàyyi mu sedd. ah déet est-ce que ce n'est pas lié à ce que Thierno doon développe sànq que ni xëy na euh, loxoy roi Mohamed si say suuf foofu. wala vent ba Ousmane Sonko Ousmane Sonko ak Macky amuñu benn contact direct. benn ah benn benn. ah direct contact direct. léegi on sous-entend contact indirect. c'est possible. Ah. c' est possible eh, non c' est possible kenn ñëw jege Ousmane Sonko gisee ak Macky ne ko waa ji nee na nangam wala kenn ñëw jege président Macky Sall dem ci loolu mën na nekk. mais ba fii nii ay roi du amul dara lu am ci suuf. amul dara dara rëccu la yow ci biir dara dara am na loolu ñu dox boo bëggee crédible la foofu fa dugg. Ah, dañuy wax da ngay wax ma déglu la. non non dëgg yàlla nekkal mag tey déglu waaye information boobu ah, ego ci ego waaw mais waxtaan tam pour ñuy seetaan quoi tamit. waaye pour ñuy seetaan fo ba sa nopp eggul foofu bu ñu koy waxtaanee. yow yow sa gàtt nga ba sa nopp eggu fa. loolu bu ñu koy waxtaanee dañuy waxtaan rek tamit quoi mën na taxaw di xas danaa ay da ngaa gàtt da bàyyi ma bàyyi ma wax dama la bàyyi nga ma ma wax quoi. bàyyi ma ma wax bàyyi ko ma wax. sama niveau d'information fi mu yegg xamoo ci dara. man noppil ah. sëñ bi xamoo ko. may ko mu jox ñu. amul benn contact direct entre Ousmane Sonko ak Macky Sall loolu maa ko wax. bon les Sénégalais vont juger. waaye yow on juge déjà jugé que ni yow da ngay déraper xamoo fooy taxaw. Sénégalais jugé nañ loolu ba pare léegi nag. li xew mooy waa ji dañ ko ci lu dul yoon ci biir këram loo xamante ne amul benn décision de justice loolu bu ñu ko yëkkatee amul kenn lu mu ciy war a commenter Jibi Gueye Ndiaye a raison ban commentaire nga ci def. yaa ko def ministre bi wax aussi. waaw ministre ma ne bi li mu wax ak. la ñu def ak man du ma ci commenter dara parce que. sëñ sëñ bi mënuñ toll Sénégal boo xamante ne. nit ki bu dellu si situation normal nit ki bu amee sa liberté d'aller et de venir. nit ki jouir de tous ses droits. dañu war a jubiler pour lan. Sénégal foofu la war a toll tey jii ni Pape Ousmane am nga sañ-sañu dem defi entraînement. mais Jibi Gueye ñu may la nga defi ko après ñu ne dañuy jubilé. mais Jibi Gueye ku jege ne bu leen jubilé dafa mel ni de ah. oh que nag vraiment il est ridicule quoi. je je ma dolli benn affaire s'il te plaît ma dolli benn affaire Pape Moussa. je je comprends parfaitement fi muy waxee et je pense que le débat du du ou ne pas jubilé si sénégalais yi sax romb nañ je pense par contre. des sympathisants c'est normal ñu kontaan ne ah dindi nañ barrières yi ñu la preuve ils sont allés là-bas c'est normal c'est humain maintenant il y a une chose partout dans le monde tout a été réglé parce que danoo toog waxtaan tout a été réglé parce que danoo def médiation mm-hmm. tout a été réglé parce que de bonne volonté se lève pour régler les problèmes déglu ma rek grand fii niveau d'information bi pa Moussa am wax na dëgg bu la nee xëy na amuloo ko xëy na la wax na dëgg c'est valable pour toi c'est valable pour qui c'est valable pour qui c'est valable pour c'est valable pour moi ka si nekk ka si nekk mën ngaa root fa la neex mais Sénégal réewu jàmm la ma ne waxuma ne root naa dama ne kasi ne mën ngaa root fa la neex xamoon ndax root naa am rootuma waaye dama ne kasi ne mën ngaa root fa la neex dañuy wax ñun dañuy dem rooti indi waaw xam nga xam nga la moom a jaaxal dama laajte rek quoi waaw maanaam léegi yow moo tegee nit injustice waaw foog nga waxtaanee ji pour injustice bi teggi quoi. non non non foofu la ñu bëgg a yóbbu quoi. ñaan njëkk bi ñuy wax ñaan njëkk maanaam dañ lay teg injustice. mais foog nga waxtaanee ji pour. injustice bi jël injustice sam la la tuddee injustice. mais yow yaa ko nangu léegi loo tuddee injustice yaa ko nangu léegi tëj li buntu këram. tëj li biir këram c'est pas que Pape Moussa injustice bi am na y'en a qui le dénoncent qui le disent ci nga bokk ci laa bokk. maintenant dañuy dem ak raison amul dara lu xew ci acteur politique amul cause buy war a tax mu xew li ñu teg Ousmane Sonko injustice la état bi ko defoon moo ko dindiwaat effectivement la question nan la état bi def ba dindi ko foofu la ñuy gëstoo. foofu la ñuy hmm. Hmm. est-ce que état bi dafa xëy rek ne bon ok waaw Ousmane Sonko wooteetul insurrection ah moo tax euh, léegi maintenant ñu dindi ko man mën naa toog ma ne gëm ma lool. léegi ma jël sama téléphone doo yem ci gëmuma loolu sax boo nee wooteetul. oui kon daa mel ni daan na ko woote. voilà appel à l'insurrection dañuy bàyyi nit ki par ah. exemple Cheikh Bara loolu lañ ko tëjee. waaw léegi léegi mais mais sauf que Ousmane Cheikh Bara du Ousmane Sonko aussi. donc kon léegi nañ dindi article un code euh, constitution. tous les Sénégalais sont égaux loolu nañ ko sànni kon. exactement mais léegi nag loolu xam nga lu ko waral. Ah, li Pape Moussa Pape Moussa li li waral loolu. Ousmane Sonko bu ko defee ñu ba ko man boo ko defee ñu jàpp. waaw donc kon rawlawuñu. waaw dina na déglu supprimer article euh, premier de la constitution bàyyi ma am fu ma waxee ak yow. sénégalais sont hmm. égaux devant la loi moom bu ma am fu ma waxee ak yow. am fu may waxee ak bu fekkee ni que yoon nekkoon na ci yoon dëgg ci niñ ko yaakaare au-delà des articles des principes ñu ne dëgg li daal Ousmane Sonko du am bañ naan article un wala dix wala vingt xam nga luy xew dañ ko tooñ ci lan. dafa def deful justice nee na ah li ñu ko plainte woon amut meurtre amul viol amul xaw ma euh, menace amul kon ah waa ji deful dara la dal wa waaj a nekk kii euh, écrivain bi dimbal leen ma. Tariq Ramadan Tariq Ramadan te same thing la mooy ah li ñu ko jiñoon muy viol amul kon dañ koy bàyyi mais injustice bi tegu ba ëpp moo waral mu extraordinaire mu différent benn beneen bi ci des moo dine Sénégal nag réew la moo xam ni bu jafe-jafe amee dañuy waxtaan Ablaye Wade da daan jógee ca fañ ko denc. d'accord ñu solal koy mbubu mu dugg biir palais ba waxtaan ak suñu bàyyi Abdou Diouf. mu waxtaanaat génnaat dem. mu ngi am donc aujourd'hui aujourd'hui ndax mu ngi am. gaw ma ne mu ngi am. Ah, waaye damay waaw ni ngay dàqee wu si tamit doy na ah. ah. damay wax ne Sénégal dafa am ay nit yu baax yuy dox lu baax dañuy dem waxtaan ak Ousmane Sonko. dem waxtaan ak président Macky Sall. c'est loolu ne leen Sénégal du réew bu ñuy taal. te loolu mu ngi am nii am na. ah loolu ah. am na moom. waaw am na donc Sénégal foofu la toll. Hmm. après nag man je trouve que ce qu'il faut en déduire c'est que nous sommes de grands de bonnes personnes au Sénégal yoo xam ne à un moment donné dañuy xam ne ah lii kat waruñu ko jéggi de part et d'autre ñu ut solution solution bi nag mooy dañuy doxal dëgg mais ci biir dëgg bi dina ku ci nekk benn pas teg pour jàll si leneen man li maa ñaan mooy naa nañu waxtaan régler problème yëpp président Macky Sall bokkatul nee na bokkatuma mm. ñii ñëpp bokk sénégalais yi tànn ki gën ci merci merci Paa Moussa point ba jeex na sama trois minutes nga ma mayoon dañ ko foqati. waaw ah, dañ ko foqati jeex na waaye jeex na. mais bu lay paasal la moom garaawul coow. <laughs> Thierno daal nga dul may yow. doo ko dul ko way daal te loolu wax sax nag Thierno pare nag nañ ci moom dootul wax. waaw. fu mu waxatee ma daal ah. mu jeex. moom maanaam moom pare nañ ci. léegi si politique bi Bachir daa foog dama ko fàtte suñu facture yi duñ dem te